jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile Moussa Tine itam daal dinay àddu rek ginnaaw rek ba njiitu réew mi yëkkatee nag lu jëm ci blocus bi amoon foofee ci buntu kër Ousmane Sonko mu rek njëkkee ay kàddoom di sant ak gërëm ginnaaw gi nag moom li ci des mu ni ñi nekk ci biir kaso bi te mbiru politique rek moo leen fa bàyyi dañoo war a génn nag ndax moom dëgg gi moom fi mu nekk ni nag mi ngi jëm di leer kile itam di Pape Alé moom taskatu xibaar bile àdduna ci mesure boobu nga xam ni moom la ñu defoon mu ni lu illégal la maanaam lu ñu tegul fenn la loolu kay bokk na ci rek na saxal ak ak yelleefu doomu aadama li ñu def kenn mënu rek xam na nañ ko mën a nattee waaye nañu jàpp ni loolee taxul nag kenn rek di génn ci mbedd mi du yuuxoo ak a ak fecci ndax jaru ko ginnaaw nag état wu Sénégal dem na ba xam ni moom la mu defoon tegu ko fenn mu siwaat itam daal di teg li nga xam ni moom mooy yoon loolee kay ci moom rek la des kon